gars yi borom photo bii ngeen gis suñu frère bii nii Aziz Dabala la fecckat la boo xam ne yàgg naa feccal artistes yu mag yu bëri Sénégal Pikine lañ ko fekk biir appartement rey ko ray ko colocataire am dañ ko rey ray ki mu dëkkal biir na technopole ba xam ngeen technopole ba côté zone terrain cosaan terrain euh, te gazel noonu biir Pikine man doom Pikine laa lu xaw Pikine moom su ma ko gisee moom dégg ko si réseaux am confirmation ne lii Pikine la dama naan doomu Pikine yee jug leen jël seen matuwaay parce que kenn du salte suñu dëkk kenn du jugee alum ñëw biir Pikine dafa sa jëf ju salte léegi nag xam nga lan may wax ji ah fii moom xoolal ku dee ñàkk nga waa ji nañ ko wër ba jàpp ko rey mu jeex tàkk ku man ku rey sa mbokk boo ko jàppee reyal ndeyam amul jégalu si gina Sénégal fii ak masla baa ngi fa ay yàlla moo ko dogal ay ndogalu yàlla la ak yi ñëw fii naan jégal li ñu rek xam na ñoom ay xarit leen ñoo doon ànd ak i affaire yi déedéet ku rey sa mbokk boo ko jàppee reyal ndeem gouvernement bi nag lii dese war a jug xam ne si nan la ko war a jugee dafa war a protéger population bi. li muy protéger population bi mooy père de famille bu ne wala ku dëkk sa appartement sa kër te sentiroo sécurité si zone bi nga dëkkee war ngaa mun a dem ni def maanaam xool sa casier judiciaire xool na yow mosoo mosoo am benn problème ak benn ak benn loi dëkk bi. xam na mosoo def benn infection ni autoriser la porte d'arme mooy maanaam nga yor fetal sa biir kër. parce que léegi yow xoolal Aziz Dabala bi si biir këram lañ ko fekk rey ko rey ki mu dëkkal mais nag mais gouvernement bi autorisé ne yow bu yow yow muy dëkk sa biir appartement sentir woon nga nekk en sécurité comme te léegi ñu lay fekk ba sa biir kër rey la mais nañ autorisé port d'arme mi xam na gars yi mën a jënd fetal dëkk ak moom seen biir kër yi ku ñëw foofu yor sa paaka bëgg maa jam ma dee ma dem yóotu naa ngi sama fetal roose la ko woo police mu jeex tàkk balaa ngaa yóbbu sama vie ma yóbbu sa vie jël sa vie gars yi dañ ko jàpp taal ndeyam si digg ñànk tang mi ku rey sa mbokk boo ko jàppee reyal ndeyam man Mohamed naa wax loolu yor leen xolu soldaa dund benn la ku dee ñàkk nga yamal xiyam nañu gisante waatee lii dafa yomb né négociation bi fekk la ba si biir di la rey lii c'est trop facile mais ni ñun ay ay ay kaña leen wala ay muus leen xanaa bëy sax amoo amoo fit sax fekk ko si mbedd bi rek rey ko am na borom hmm? waaye mais lii ñun léegi Mali Mali yi sax ñoo ñu ëpp ñoo ñu ëpp valeur si dëkk bi c'est trop ah. yàlla ko yàlla xare àjjana sama bro bii nii